yàlla bu mu doon ñu dotteeg ak waa gërëm ak ay saxaabaam ak képp nga xamante ne soobu na ci yoon jub ba keroog borom subhanahu wa taala di daal tukkal li nga xamante doom day comme ni ko xamee ba léegi ñuy wéyal li nga xamante ne mooy activité bi mooy beneen bi nga xamante ne mooy dars yi fay mi ngi aju ci les des cérémonies familiales mais alhamdulilah oustaz euh, boo xoolee si introduction daal gën na matale mooy teggin bi nga xamante ne euh, gisee na ko si nit ki buy def fiançailles ba jëm si li nga xamante ne mooy cérémonie yu war yu war a def xam naa dañu guddal dañuy jox isaab incha allah mu daal di euh, commencé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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار bokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla li nga xam ni mooy di xeetu kenn di jullee ko sëlmal ci yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak salaat yàlla boole jotaay bi ci bi jotaay yi mu gërëm defal ñu ci jariñu ci suñu àdduna ak suñu àllaaxira comme ni ko mbokk mi waxee euh, jotaay bi euh, li ñu bindoon ci programme bi mooy déret yi am ci cérémonie familiale euh, ñu gis ni euh, li jiitu mooy xamal nit ñi cérémonie yooyu nan la ko lislaam tëralee ko defee bu ñu xamee ni ko lislaam tëralee ba noppi te la xamaale dérive yi ndax lu warook ni ko lislaam rek loolu dafay tudd dafay doon ab dérive muy wàcc yoon wante lu ñàkk ni dinañ ñëw ci cérémonie yoo xam ni gannaaw ba ñu tuddee résumé ci résumé ni ko lislaam Euh, danañu fexe dugalaale jamono ji ñuy tuddaale ni ko lislaam tëralee dugalaale yenn yoo xam ni dañ ci déggee jëriñ loolu danañ ko def yenn cérémonie ak tamit yoo xam ni euh, danañu junj yenn jëriñ yi jagleel ko euh, tudd cérémonie yi nag yi ci ëpp doole muy mariage ak tudd muy ngénte ak dëj eh, loolu tax dañuy tàmbale ci léeg-léeg koo xam ni ci wàllu mariage ci cérémonie mariage am na ci wàll boo xam ni am nay njëriñ yu bari loolu tax eh, ñu tàmbale ci moom te mooy alxitba mooy fiançaay su tax tey jotaay bi insha allah ci aju kon euh, muzakira bi nekk seen kanam muxaawala la du ñàkk ay jumte am ci insha allahu euh, ñu ko gisee wala souligné ko insha allahu mën nañ cee mën nañ ko rectifié waat bu ko defee ñu topp muzakira bi xaj na danañu lu ñu mën a firi baax par baat lu dul ci yenn bërëb yi ndax comme dars la aussi fa ñu jële ko ci système dars xam ni dañ ci jàngale atte yi wala teegin yi jàngale ci yenn yenn baat yi seen signification donc ñu ngi ko tuddee aadabun shar'iyatun wa muxaalafaatun fi lmunaasabaati walxafalaati al aidiyati bon muxaalafaat bi fii li ñu ko séparé wala ñu ko séparé waaw dañoo def erreur bi ñu koy bi ñu koy euh, génne ndax mu xaa la après ñu di wàcce faati faatun loolu araam nangu ko bu fekkee tubaab nangu na ko araam nangu ko aussi mu xaj na ci bi quoi xaj na ci ligne bi donc mënoon nañ def aadaabun wa muxaalafaatun après wàcce fi munaasabaat alxafalaat al aaidiya ala boo xoolee en tête bi la ca nekk moo wér kon thème bi titre bi mooy aadaabu ay teggin teggin benn singulier bi mooy adab adab mooy teggin adab mooy ay teggin charia mooy yoo xam ni charia moo ko tëral alquran xadis yon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak loo xam ni ijma la ci borom xam-xam yi dañ cee dëppoo muy tegg yi nga xam ni charia moo ko tëral wa muxaalafatun ak ay dérive muxaalafaat lu yella singulier mooy muxaalafatun muxaalafaat mooy ay dérive wala ay wàcc yoon wala ay wuteeg yoon parce que mi ngi jógee ci xaalafa wute na kon wuteeg sharia maanaam wuteeg ay wute yoo xam ni am na ci teggin yooyu sharia tër ak ay safaan yoo xam ni am na ci teggin yooyu sharia sharia tër kon adabun shariyatu muxaalafaatun teggin yoo xam ne sharia ko ter ak ay wuuteeg sharia muy ay dérive yoo xam ni ak wàcc yoon yoo xam ni mu ngi am fil munasabaati ci occasion yi wal xafalaati ak ci cérémonie yi al aliyati yi familiale al aila mooy famille mooy al usra ci beneen waxin donc li ñu bëgg a jàngat fii mooy lenn ci teggin yi sharia teg ak bu ñu xoolee réalité bi lenn ci ay dérives yi am ci cérémonie familiale ñu tàmbale ko ci inna alhamda wóor na ni mboolem xeetu cant yépp lillaahi ñeel na yàlla nahmaduhu ñu ngi koy sant wa nasta'inuhu ñu ngi sàkku ci moom ndimbal ونستغفره نكوي جغل ونعوذ بالله نيغي مسلو يالا من شرور أنفسنا تسني أي بكر وسيئات أعمالنا أكسي نياوتي في جف من يهده الله كيف كو يالا جندي ci mbaaxam ak yërmandeem fala mudilla lahu amul kenn ku ko mën a sànq wa may yudlil képp ku yàlla sànq ci maanuteem fala haadiya lahu amul kenn ku ko mën a gindi wa ashhadu maa ngi seede an laa ilaha an nu mooy liy mbir tey mbir cosaan bi mooy annahu laa ilaha amul kenn ku yeyoo jaamu wala kenn ku ñuy jaamu ci dëkk illa allahu kurul yàlla waxdahu moom dong laa sharika lahu amul bokkaale wa ashhadu maa ngi seede tamit ni am na muhammadan ni muhammad muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamu yàlla la wa rasuluhu ndaw yàlla la jaamu yàlla la kenn du ko kenn du ko jox yàlla wa rasuluhu wante ndaw yàlla la wa ñu war koo gëm war koo topp ay ndigalam jëfe ay santaanem bàyyi ay tereem noonu tamit yàlla ci sunnaam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi loolu ziwaaja mariage fi lislaam ci lislaam fitratun lu naturel la fitra mooy lu yàlla bindee doomu aadama la yàlla daf ko bindaaleeg doomu aadama ziwaaj euh, ci lislaam dafa dëppook nature doomu aadama kon du anti loolu tax contraire bi mooy anti nature muy rahbaaniya ñu bëgg a làbbewu euh, walla ñi nga xam ni dañuy wax ni ñoom du ñu jël soxna wala jàpp ni nit bala muy sell jege yàlla faaw mu bañ a jël soxna ndax dañu jàpp ni jigéen ñi imma euh, dañuy gàllankoor nit ci digganteem ak boromam wala dañoo setul ay sobe lañu boo leen taqee day tax doo sell sa xol du sell wala am ñu jàpp ni ci boppam euh, nit ki ci boppam mariage bi bi muy def loolu day tekki ni cofeel li mu waroon am ci yàlla ak bëggeel di mu waroon a am ci yàlla euh, da koy séddoo keneen ko defee loolu xërëm la soxna soosu mujj di nekk ci moom noonu tamit dafay mujj bokkaale yàlla moom bu ko defee ak yenn xalaat yu mel noonu nga xam ni mooy tax ñu bari léeg-léeg ñu bañ a dugg ci sëy wante yàlla li mu bindee doomu aadama muy góor ak jigéen ah, daf leen bind ci seen nature ci boppam ah, di leen woo ci ñuy takkante ci sëyante loolu la yàlla bindee doomu aadama nga xam ni aajo la bu nit ki am yaramam am ko comme ni mu aajowoo lekk ak naan aajowoo nelaw noonu la aajowoo lii donte nag aajo boobu euh, dañ koy l'islam dafa ñëw ngir organiser ko noonu tamit ngir nosee ko ba ay dérive du ci am wante mooy nature doomu aadama loo tax ku ko deful ci ni ko diine diglee rek danga ko defee neneen moo indi yenn dérive yu mag yi am ci wàllu pédophilie pédophilie indi yeneen péri bi ci wàllu ngër jigéen ak yu mel noonu kon dafa dëppoog nakiiru doomu aadama wa ibadatun jaamu yàlla la jaamu yàlla la ci lislaam jaamu yàlla la donte ci cosaan aada wante euh, nit ki ci boppam mun na ko ëlbati ba mu doon ak jaamu yàlla wa sunnatu nabawiya sunna yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen ci xadis ñett ñi ba ñëwee laajte euh, dund yonent bi sallallahu alayhi wa ci biir këram ak nu muy jaamu yàlla soxnaa mi nekk leen ko ñu mujj koo xeet mujj gi ñu ne ah def leen ndànk ndax yonent bi yàlla sallallahu alayhi wa jéggal na ko baakaaram yi njëkk yaa ngi mujj yi kon ñun war nañoo def lu ëpp lu muy def kenn ki ni dootuma nelaw ci guddi kenn ki dootuma lekk ci bëccëg damay euh, dëkk di woor kenn ki dootuma takkati soxna yonent bi mu ko yëgee daal di woote mbooloo mi daje publiquement wax leen dégg naa am na ñëw sama kër laajte euh, laaj samay soxna li muy jaamu yàlla xeeb ko ba pare nag wax ni dootuñu defet nii dootuñu defet nii dootuñu defet naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni leen man maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla te damay julli guddi di nelaw damay bëccëg noonu tamit di dog damay takk ci soxna yi lii de mooy sama sunna fa man raghiba an sunnati fa laysa minni képp koo xam ni bañ na sama sunna wala delloo na ko kooku bokk ci man kon loolu mooy sunna yonent bi bal mooy sunna mbooleem yonent yi yàlla mu sën a yabal yonent yëpp dañoon am soxna ñoom yonent yooyu lu dul ñi nga xam ni am nañ ci ngàtt loolu tax kenn ci boroom xam-xam yi di wax ni euh, ba yan askane nañ ko yéen saxaaba yi kenn du bàyyi sëy wala nikaax maanaam sëy kenn du ko bàyyi lu ci ñaari anam imma ajz maanaam tële wa imma fujur wala ak kàccoor ak kàccoore rek boo xoolee ñaari ñu koy bàyyi ñu bari imma ajz ak tële la am na feebar bu leen dab walla ñu am ngànt si boo xam ni mënuñu ko wax kenn wala ak kàccoore rek kon ci ziwaaj boobu zawaaj boobu sëy boobu yanaalu bihi l mu'min ki gëm yàlla ci lay amee al ajra yool yàlla wante kañ ida axlasa niyata bu fekkee sellal na yéenéem ci biir mariage boobee boobaa dafay doon jaamu yàlla parce que desaan aada yi yàlla du ci bindal nit ki tuyaaba muy say lekk say nelaw say sangu masalan ak yu mel noonu yooyu aada yëpp aada la wante dafa aada yooyu mun naa soppaliku nekk ay ibaadaat wante yéene moo koy soppi yéene ci boppam bokk na ci njariñam yi mooy dafay soppi aadaat yi def leen ay ibaadaat maanaam aada yi lañ mujj def ay jaamu yàlla bu nit ki amee yéene bu sell ci aada ba muy jëf moo xam nelaw ya moo xam lekk ya euh, moo xam tamit sol ya muy sol yéreem ya muy sangu suturaam ak sangu ya muy sangu ak yu mel noonu muy sangu aada ak yu ni mel yooyu yëpp euh, bu yére bi rafetee sellee nit ki yàlla da ko ci bindal ci yàlla mu doon ay jaamu yàlla wa kaana qasdu ah, bu fekkee tamit yi jubluwaay ci ci mariage boobu dafa nekk bi bi zawaaj yi maanaam jubluwaay ci mariage bi dafa nekk i'faa an nafsi anil xaraam i'faa an nafsi mooy fegal sa bakkan nga fegal sa bakkan ah, nga fegal ko ah, sàmm ko anil xaraam ci tab bi ci lu araam ci wàllu bànneex muy njaaloo ak xeetam nga xam ni bokk na ci jubluwaay bi ngay am mooy nga fexe ba sàmm sa bakkan noonu tamit fegal sa bakkan euh, ci tàbbi ci njaaloo loolu yéene la bu sell ndax te yàlla tax ndax njaaloo dafa xaraam bàyyi ko dafa war ci nit ki lépp lu ko ciy dimbale loolu tamit te buy sellalee yéene loolu dafay nekk ak jaamu yàlla war ragbata fi takwini usrati muslima noonu tamit jubluwaay bi doon ar-raghbata mooy xemem ak tamit xër lool ak bëgg lool fii takwini ci former al usratul muslima euh, famille boo xam ni famille jullit la maanaam loolu tamit bokk na ci jubluwaay yi nga xam ni kii dugg ci mariage bi war na ko am wa taksiri sawaadil ummati al muhammadiya ak tamit am raghba muy xemem boobu ngir yokk limu xeetu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam sawaat bi mooy mbooloo mi rek sawaat buñ ci arab mooy mbooloo mu bari ngir yokk mbooloo xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglee nii damay leen di puukare woo bu yowmal qiyaamee maanaam dee leen takk soxna yi nga xam ne dañuy mën a jur ndax damay leen di puukare woo bu yowmal qiyaamee wa biha ci ah, fitra zawaaj boobu maanaam wa bihi la war a mooy ci zawaaj boobu tastamirul xayaa ci la dund gi di continuer kon biha boobu bihi ngañ koy def mu dellu ci zawaaj kon bihi ci zawaaj boobu mariage boobu tastamiru ci lay continuer alxayaatu dund gi maanaam continuité dund gi yàlla nga ko ak ci ànd boobu rek la maye continuité am maanaam production bi am muy ànd ci wàllu mariage benn bunt boobu rek la yàlla maye euh, continuité doomu aadama am ci ak production doomu aadama am ci am amarul ard noonu tamit dundal suuf ci lay amee dundal suuf si bu ko defee ressource humaine am ci mariage yooyu bu ko defee ressource yooyu ñooy amee ay capacité amee ay euh, savoir amee ay connaissance noonu tamit ñoom ñoom ñooy amee compétence yi nga xam ni euh, ñoom ñooy dundal suuf si ci suuf la mu soxla yu wàll dundal wàll dundal ko ci kawam ci mbaax ak jiwénal ak defar ak tamit ci tabax ak lu aju ci loole ilaa yasha allahu tabaraka wa taala ba korog mu soob yàlla yàlla jële fi suuf loo tax borom bi yaqul allahu taala yàlla mi wax ni wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddata wa rahma inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun ci suratu Rum borom bi subhaanahu wa taala mi wax ni wa min ayaatihi bokk na ci ay kiimaana moom yàlla kiimaan yi nag mooy mbir yu yéeme yi nga xam ni benn njariñ doomu aadama da ciy nekk ñaareel ba tamit dafay wane màggaayu yàlla ak gàttanu yàlla ak xam-xamu yàlla ak xereñu yàlla di wane tamit kennu yàlla subhaanahu wa taala yooyu mooy aayaat yi yàlla nag ci aayaatam yooyu bokk na ci an xalaqa lëkkum maanaam bind gi mu leen bindal min anfusikum mu soqe koo ci yéen jóge ci yéen azwaajan ay soxna loolu bokk na ci kéemaanam comme ni ñu ko xamee ah, suñu maam Hawa yàlla nga ko soqee ci faaru suñu maam aadama ca càmmoñ ba faaru càmmoñ ba fa gën a euh, dëng fa la féete kaw gën a féete xol ba xam ni fa sentiment ba nekk fa sentiment ba nekk cofeel ba fa mu nekk fa jóge xol ba foofu la soqee faar boobe kon suñu genn wàll lañu ñu jëlee ko jëlee leen ci ñun kon ñooñu ngir ñu wëlbatikuwaat ànd ak ñoom day gën a yomb comme suñu genn wàll lañu ngir ñu mottalante tamit dafay gën a yomb tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni an-nisaa'u shaqaa'iqu rijaal jigéen ñi ñooy genn wàllu góor maanaam ñoo leen di mottali képp ku am soxna tamit sa genn wàllu diine mot na kon loolu yàlla subhaanahu wa taala mënoon na def suñuy soxna doon yeneen eet yu bokk ak doomu aadama wala mu sàkk xawaa ni mu sàkkee aadama ñu mu jëlee ay suuf dajale ko sàkk ca aadama mu dajale yeneen suuf sàkk ci xawa mais nag ah, foofu léeg-léeg ay différence yu bari mën na ci am loolu tax borom bi subhaanahu wa taala jëlee ci genn wàllu góor nga xam ne faaram la la jëlee ci genn wàllu suñu maam aadama sàkk ci suñu maam xawa nga xam ni ak jege gi day day yomb wéttalante gi dafay yomb cofeel gi tamit dafay dafay dafay yomb wante tamit mottalante gi euh, dafay yomb ndax suñuy suñuy genn wàll la ci ñun la ñu soqe ko kon bu ñu delluwaatee ci ñun kon dañuy am place ci ñun kon loolu bokk na ci ay kéemaanam moom yàlla subhanahu wa wante lan moo tax mu def loolu li tas taskunu ilayha ngir ngeen amee dal fa ñoom ngir ngeen mun a am ak dal nekk ay dalluwaay kon jigéen ñi dalluwaayu góor ñi la ñooy dalal góor ñi aussi góor ñi dañuy dalal jigéen ñi aussi wante euh, jigéen ñi mën a dalale góor moo raw loolu tax euh, dal dalluwaayu góor ñi lañu ci seen ci wàllu dëkkuwaay dalluwaayu góor ñi lañu ci wàllu gérer kër gi ñooy stabilité góor tamit ci wàllu koom-koomam ci wàllu koom-koomam ci wàllu vie social ñooy stabilité bi ba léeg-léeg sax ci vie intellectuelle nit ki bala mooy am stabilité intellectuelle léeg-léeg bu amul soxna ngir mu am ko dafay jafe lool rawatina ak fitne yi ñuy dund te dafa naa yéen xam ngeen si dara beneen bi mooy euh, bu amul soxna su baax tamit bu mun a dalal xam ni dafay am sécurité ci soxna soo di ko yëg sécurité am dal foofee am euh, di jëlee ci moom stabilité kooku tamit pour euh, dundam mun a nekk dund bu dal dafay dafay dafay dafay jafe loo tax bu amee dal ci kër gi loolu moo ko indi xol bu dal xel bu dal yaram bu dal bu ko defee nag ci lay mën a am sago ak dal ba mën a jaamoo yàlla tamit tax soxna su baax loo tax dafay dimbali nit ki sax ci jaamu yàlla dafay dimbali nit ki ci jaamu yàlla kon beneen bi tamit mooy ci wàllu sant parce am na lu bari lu muy dalal ci sa yaram ci loo xam ni euh, daanaka nature doomu aadama moom la yàlla bindee noonu bu ko defee sa yenn humeur yi lu bari dafay koy dalal ah léeg-léeg yenn yenn ndox yu bon yu nekk ci sa yaram aussi da koy da koy da yoon la pour génne ko aussi loolu mën a dalal sa xel dalal sa xol aussi dalal sa yaram Euh, bu ko defee euh, ak dalluwaay la ci góor li taskunu ilayha wante li gën a yéeme tamit bokk na ci wa jaala ma mawaddatan wa rahma yàlla nee na moo def seen diggante mawaddatan bëggeel cofeel wa rahmata ak yërëmante ak yërëmante cofeel goo leen weccante ak yërëmante goo leen weccante yàllaa ko def kon lii def defu yàlla la wa jaala baynakum def defu yàlla la da nga gis ñoo xam ne mosu ñoo bokk éducation mosu ñoo xam xamante mosu ñoo bokk sax Euh, mosuñu bokkuñu làkk wala bokkuñu réew wala bokkuñu euh, nàngam sax mais bu yàlla defee seen diggante sëy am ca dañuy jegante bëggante yërëmante ba nga xam ni léeg-léeg sax mu raw cofeel gi nga xam ni moom la moom lañu am ñoom ci seen yeneen mbokk yi ñu bokk ak deret sax xam ne cofeel gi am seen diggante ak déggoo gi am seen diggante ak jegante bi am seen diggante ak wéttalante bi am seen diggante du am ci diggante kenn ci ñoom ak keneen loolu nag def defu yàlla la subhanahu wa boo xam ni moom la def ci diggante bi moom borom bi subhanahu wa taala cofeel bi nag ñu ngi koy gën a xaar ci jigéen te mooy force am wane ko tamit mooy force am loo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni boo leen takk na ngeen takk soxna yi al al wadud mooy soxna si nga xam ni dafa bëgg borom këram ba pare di ko ko wan di ko ko wan di ko ko wan ci waxam ci muy feeñ ci waxam di feeñ ci jëfam di feeñ ci gestes yi bu ko defee mooy wadud nga xam ni day wan borom këram ni mu ko bëggee waaw xam ni am na ay baat yoo leen di utiliser yéen ah waaw mooy ay mel noonu kon loolu ci jigéen ki lañ ko gën a xaaree ndax jigéen de faible mais faiblesse mooy force am ci kanamu góor bu utiliser faiblesse am boobu waxam ju nooy jooju ci kanam borom këram ak tamit neexalam jooju ak jogeem jooju ak wane gi wane bëggeel ci borom këram ak toppatoo gi mu koy toppatoo loolu ci boppam mooy faiblesse am mais mooy force am ci kanamu góor te loolu mooy foofu foofu la faiblesse góor nekk waaw ah, góor lu mu ñàng ñàng ñàng ci biti moom côté boobu ba fa jaaree rek daanaka day wàcc day wàcc day wàcc ah, loolu tax da gis koo xam ne léeg-léeg da ngay jàpp ni kii du reetaan mais nag boo fekkee soxnaam beneen nit lay doon waaw ah, loolu yàlla ko def waaw koo xam kilifa nga xam ne bu dee sëmm yow doo doo sañ moom mais nag bu fekkee soxnaam moom wala nga séen bu soree soxnaam day nekk beneen nit kon loolu yàlla loolu loolu la doxalee mbir yi wa rahma yërmande gi nag ñu ko gën a séentoo ci góor muy borom force xam nga borom doole borom kattan boo amul yërmande da ngay gaañ da ngay gaañee loo tax borom force borom kàttan il faut mu am yërmande boo amul yërmande rek day gaañ yow force boo xoolee force bi aju ci wàllu koom-koom bi boo xoolee li ëpp ci góor gi loxo góor gi la ko yàlla teg ndax financement bi euh, wala euh, financé bi maanaam dund bi ci loxoom la ko mbaggam la ko yàlla teg ci kawam la ko yàlla teg dëkkuwaay bi moom moom moom la war euh, noonu tamit dépense bi moom la war col gi moom la war noonu tamit paj gi moom la war kon li aju ci wàllu koom-koom lépp ci loxo góor la ko yàlla subhaanahu wa taala teg moom la ko tamit euh, gàll kon nag loolu boo ko yoree force xaal alal force la léegi nag force boobu boo ko yoree boo amul yërmande mun nga maltraité jigéen ñi mun nga ko sonal da tax il faut am yërmande waaw beneen bi aussi mooy physique am nga force physique boo xam ni pour jigéen gi amu ko am nga force tamit euh, sentimentale boo xam ni maanaam góor mu am na fit boo xam ni jigéen amu ko beneen bi tamit ñi jigéen nekkee ku sentimental góor daanaka demewul noonu ci côté boobee loolu tax force bi la yàlla defal force boobu bu am la yërmande ci jigéen ki boobaa mën nga koo gaañ mën nga koo maltraité loo tax yërmande googu tamit ki nga xam ni mooy ku góor moom lañ ko gën a euh, xaare yàlla ni inna fi dalika la ayatin ci yii daal ay kéemaan a ngi ci li xaw yatafakkaru ñeel nit ñoo xam ni ñu ngi xalaat di jëfandikoo seen xel kon boo xalaatee ci ànd rek diggante sëy boo ci xalaatee rek mun nga ci gis kéemaanu yàlla yoo xam ni day wane ni dëgg yàlla am na te moom rek mooy jaam waan abdurahman ibn yazid ci abdurahman ibn yazid mu ni daxaltu maa alqamata wal aswad ala abdillahi mu ni benn bis dama ànd ak ki ñuy wax alqama euh, alqamatan qays dama ànd ak moom ak ki ñuy wax al aswad ibn yazid ñaari taalibe lañu ci taalibe abdullah ibn mas'ud abdullah fii abdullah ibn mas'ud lañ ci jublu ndax ñuy waa kuufa lañu euh, bu ñu waxee abdullah rek abdullah ibn mas'ud lañ ci jublu ci euh, riwayat xadiis yi bu ñu waxee abdallah rek abdallah ibn mas'ud lañ ko jub mun damaa duggoon dama ànd ak alqama ak aswad man abdurahman dem ci abdullah ibn mas'ud radiallahu anhu nee na abdullah ibn mas'ud nii fa qaala abdullah abdullah nii kunna maa nabi sallallahu alayhi wa sallam shababan ñun de ba ñuy ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay jeunes lañu woon nekkoon nañu di ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon ay jeunes yoo xam ni la najidu shay amuñu dara ci koom-koom maanaam ñu pauvre la ñu wan dañuy ànd ak yonente bi sallallahu ay jeunes la ñu wan saxaaba yi ñi ñëpp ay jeunes la ñu wan saxaaba ay jeunes la ñu wan boo xoolee yonente bi sallallahu alayhi moo ci magoon ci njëlbeenu lislaam yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ci mag te boobu 40 ans la ñi ñi nga xam ne ñoo tegu muy Abubakar radiyallahu anhu am ay 37 ans wala 36 ans ñeneen ñi euh, ay 34 ans mel ni Ousmane euh, yu mel noonu ñeneen ñi ñi ngi am ay vingt et quelque ñeneen ñi ngi am ay dix dix dizaines yi lañ nekk comme ñoom Abdullah Mas'ud ak ñoom ñeneen ñeeg ñeneen ñun ñëpp daanaka ci âge boobu lañ nekk ay Zubair ibn Awam ak Abdurrahman ibn Awf euh, ak Talha ibn Ubaydullah yooyu ñëpp nga xam ni diggante ay ñii ay dix-sept ans ñii ay quatorze ans lañ nekk ba ñuy dugg ci lislaam nga xam ne ñoo jiit ci lislaam yonent bi moo leen mag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko mag ci saaba yi bariwul kon bàyyi taxaw yi ay abbas ay hamza nga xam ni ko magee bariwul ak bàyyi abubakar radiyallahu anhu ila axiri ala kulli saaba yi ay jeune dañu woon nee na wante amuñu woon dara fa qaala lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ni mu niñu yaa ma'shara shabab yéen jeunes yi man istataa al baata wala minkum al baata képp koo xam ne ne safaa yi ma yaa maachara shabaab yéen jeunes yi maanaam mbooloo jeunes yi kon foofu wax ji adressé wu ko ci mag ñi ci jeunes yi la ko adressé mu ne ma ne safaa minkumul koo xam ni man attan na ci yéen charge kër baa mooy charge kër al baatu mooy képp koo xam ni attan na charge kër lépp lu ci aju ci wàllu kër ci ay charte attan na ko ah fal yatazawaj na marié na takk soxna ndax fa innahu ndax loolu agadu lil basari takk googu muy takk soxna mooy gën a mën a tax mu damm ay xefam maanaam mën a téye ay gëtëm ci xool jigéen ñi ak ci xool xaraam mooy mën a tax mu mën a damm euh, ay mën a wàcc bëtam noonu tamit damm ay xefam bañ xool jigéen yi ak seeni awra wa axsanu lil farji mooy gën a mën a tax nit ki mën a sàmm pëyam sangeel mooy gën a tax nit ki mën a sangeel pëyam maanaam maîtriser boppam ba nga xam ni du njaaloo du dugg ci lu xaraam kon takk soxna mooy dimbale nit ki ci mun a téye bëtam ak tamit mën a téye boppam parce que ñaar yi dañoo ànd nit ki mënu téye boppam bu mënul téye bëtëm du mën a téye boppam loo tax ki la gën a mën a téye bëtam gën laa sàmm bëtam moo la gën a mën a téye boppam loo tax il faut boo bëggee mucc ci yenn dérive yi ci wàllu bànneex il faut ngay téye sa gët ngay wàcc sa gët ci xool jigéenu jaamur yi wala xool seeni awra walla moo xam ci euh, télévision la moo xam ci journaux yi la moo xam tamit ci internet rawatina il faut ngay wàcc sa bët ci soxna bu dul loolu rek doo doo amati maîtrise te jigéen dafay mujj doon sa fitna jamono ju nekk sa xel li ci dem seytaane di la jaare foofu loo tax faaw nga damm say gët ci loolu mu ne waman lam yastati ku mënul takk ndax amul lu muy yoree kër yonent bi salaa sallam nee na ah, boobaa fa alayhi bi sawmi boobaa na takkoo koor Ah, lu tax koor gi mu ni fa innahu lahu ija ndax koor gi mooy damm bànnee xam maanaam mooy wàññi ah, dégëre tàngooram muy tàngooru bànneex bi moo koy wàññi moo koy seral ba nga xam ni di ah, koy puusil seyta maanaam bànneex bi nekk ci yaramam di ko puusee muy xalaat ci jigéen ak xalaat li ci jëm loolu bànneex boobu dafay wàññeeku maanaam dafay seet dafay def tàngooru boobu nekk ci moom nga xam ni mooy fuural deret bi ba xalaatam ci jigéen di dem di dem ci jigéen di jub loolu ci boppam dooley euh, xalaat boobu ak bànneex boobu moom lay wàññi du ko fi jëlee mais daf koy daf seral euh, nelaw loo ko bu ko defee mu daal di giif giifal ko noonu maanaam wàññi kàttanam ak dooleem ba nga xam ni day tëdd euh, maanaam di nelaw koy nelawal ko defee koor gi euh, parce que koor gi ni jamono ji muy xiif ak di mar jamono jooju euh, énergie bi day wàññeeku ci moom bu énergie bi wàññeekoo loolu dina tax ba nga xam ni deret bi na mu war a dawee du dawee noonu bu ko defee nag loolu bokk na ci li koy dimbale ngir bànneex boobu mën a wàññeeku beneen bi tamit mooy koor dekk jaamu yàlla boo xam ni euh, njariñ bokk na ci njariñam mooy day wàññi kàttan boobu même bu dul euh, côté physiquement da koy wàññee mais beneen côté boo xam ni côté boo xam ni yàlla rek subhanahu wa taala moom moo ko xam def ko ci xasiyatu sa sa sawmu mu nekk jagleetum nekk nekk ci sawmu ci doole boo xam ni moo nekk ci koor boo xam ni euh, dafay wàññi kàttan boobe comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala alayhi salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi waxaat na ni tunkahul mar'atu li arba'in danañu takk soxna maanaam liy poussé danañ takk soxna ngir ñeent maanaam liy poussé góor ñu bari ci ñuy takk soxna ñeenti mbir la ñoo koy poussé pour mu takk soxna maanaam pour mu takk ab jigéen nee li maalihaa léeg-léeg alalam danañ takk soxna ngir alalam wala xasabihaa danañ takk soxna ngir yaxam bu rëy maanaam askanam wa jamaaliha danañ takk soxna ngir taaram wala diiniha danañ takk soxna tamit ngir diineem yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni fadhar booy tànn booy jël ci ñii na nga jël bi daati diini borom diine bu ko defee nag taribat ah boo deful loolu nag taribat takk na suuf yadaaka sa ñaari loxo maanaam dóor nga sa loxo ci suuf boo jëlul borom diine mooy perte nga boo jëlu borom diine rek perte nga kon yii ñooy pousser nit ngir mu dugg ci soxna léeg-léeg da gis koo xam ne soxna si am na alal bëgg na ci alal jooju ba tax mu fexe takk ko gis koo xam ni gis na ni soxna si ñu ci famille boo xam ni jàpp nañ ni famille yi ñoo gën a noble ci dëkk bi mu jéem a fexe ngir takk ko ngir lool ngir yëkkati moom askanam moom euh, nga gis koo xam ni xool na soxla si rek mu yéem ko ci wàllu taar dafa ne physique bi la xool rek soxna si jekk mat jigéen ah loolu yóbbu ko ci mu jëm ko takk xam ni loolu ko ci poussé maanaam loolu moo ko attiré ci soxna si ba mu takk ko yonent bi nag ni ah am na koo xam ne diine ji lay xool moo koy attiré ci jigéen maanaam xoolul ndax jigéen boobu am na alal wala amu ko xoolul ndax jigéen jooju ah bokk na ci ñi ñuy wax askan bu rëy wala askan bu eh, rëy wala bu yamamaay yax bu rëy wala yax bu sew ndax bokk na ci wala bokk ci askan yi mooy masalan euh, ñi nga xam ni seen maam defoon na ay jaloore ay manoore am ay succès yi mu defoon moo xam ci wàllu guerre la moo xam ci wàllu masalan diine la moo xam ci wàllu euh, ñoom ñëpp dañu am ay euh, alal ñoom ñëpp nekk ay borom wala ñoo am ci borom nguur la ñu won ak yu mel noonu yooyu la nit ñi léeg-léeg di nattee askan bu rëy wala askan bu bu yax bu rëy wala yax bu sew ala sabili yooyu moom euh, mbiru ceddo la woon loo xam ni yonent bi neen jóge ci xeet bi bokk na ci mbiru ceddo yi nga xam ni ci xeet bi duñ ci mucc am ñoo xam ni taar bi moo leen di dugal ci am ñoo xam ni tamit diine ci loolu tax mu ni booy tànn na nga tànn borom diine ci boo bëggee bañ a rëcc waxaan na moom sallallahu alayhi wa sallam ni ida jaakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa ankixuhu fa ankixuuhu ci beneen riwaaya fa sawijuhu illa tafaalu takun fitnatun fi l ardi wa fasadun arid xadis bi Tirmisi solo xadis wér la yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ni jamono joo xam ni dikkal na leen yéen parents yi wala yéen soxna yi man tardaw na diinahu wa xuluqahu surtout parents yi nga xam ñooy kilifa soxna yi saa bu leen dikkalee di ñaan seen soxna seen seen doom man koo xam ne ci góor ñi tardaw na diinahu gërëm ngeen diineem doy na leen wa xuluqahu ak jukkoom fa ankixuuhu ne ngeen ko may soxna illa tafalu boo leen ko deful nag ah takun dana am fitnatum fitna ah, fil ardi ci suuf si maanaam fitna dana am ci suuf si wa fasaadun arid ak yàqu-yàqu bu bu gudd gudd bu yaatu yaatu boo xam ne kenn amul kenn du xam fan lay yem kon loolu tamit yonente bi alayhi salaatu wasalaam conseillé woon na ko euh, parents yi seeni xale yi seen doom yi jigéen yi wala seen mbokk yi jigéen yi nañ ca xool ci kañ koy may borom jiine ak borom jikko buñ ko deful yàqu-yàqu moo ci jur kon kii benn introduction la ñu dugg nag ci premier point bi nga xam ni mooy adabul shar'iyatu fi xidma mooy ay aadaabu ay teggin yoo xam ni charia moom la charia tëral fil xitbati ci labat mooy fiançaay xam ni mooy bunt bi nga xam ni ci la nit di duggee ci sëy mooy buntuk labat borom bi subhanahu wa taala juñ na ko ci alquranu karim ni wala junaa aleykum fi ma arradtum bihi min xitbati nisaai aw aknantum fi anfusikum mu ni wala junaaxa aleykum amu leen bàkkaar fii ma arradtum ci la ngeen gaaral gaaral min xitbati nisaay ci labatu jigéen ñi labat jigéen ñi li ngeen gaaral ci labat jigéen ñi loolu doo leen ci am bàkkaar aw aknantum fii anfusikum wala ngeen nëbb ko ci seen biir loolu doo leen ci am bàkkaar lii mi ngi doon wax jigéen yoo xam ni ah, veuve la maanaam jëkkëram génn at na mu nekk ci idda jamono jooju borom bi ni boo leen gaaralee ni yéen bëgg ngeen ko takk maanaam labat ga gaaral ga maanaam bañ jaar ci digg ba nag mais da ngeen gaaral rek boobaa nag loolu yàlla neen dana nekk ci euh, masalan gaaral yi am na ay façon yu bari nga dina ñëw ci kanam masalan nga ni ko masalan euh, imma mun nga ko wax ni euh, soxna si yow de ku baax nga euh, nangam nangam euh, tamit boo noppee ci sa idda bëgg naa xam kan ngay jeexal sa idda masalan yu mel noonu euh, am na ñoo xam ne léeg-léeg jaar di toppatoo doom yi ak yu mel noonu ah ak yu mel noonu ala kulli gaaral ko dana nekk ci bu ñëwee ci xadis yonente bi sallallahu alayhi yu bëri junj na mbir yi aju ci wàllu xibba muy fiançaay jëlee nañ ci sahl ibni abi xatmata mu ni radiallahu anhu mu ni euh, rahimahullah mu ni raaytu muhammad ibn maslamata dama gisoon muhammad ibn maslama bokkoon ci saxaaba yi yutaaridu imraatan ma gis ko muy dàq ci bëtam benn jigéen maanaam teg bëtam benn jigéen maanaam jigéen jaa ngi dox nii mu teg ko bëtam yi di ko xool waaw ah, di basari yi ci bëtam maanaam dàq na benn soxna ci bëtam di ko xool teg ko bët maanaam soxna si dem nii rek mu teg ko bët di ko xool di ko ñu gaa yi gaa yi wax gunge nee na fa qultu ma ne ko tanzur ilayha wa anta min ashaabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ah, yow da ngay xool jigéen gi nii te yaa ngi bokk ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam maanaam comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere euh, xool soxna yi xool bu yàgg laa tutali nazra comme ni ko yonent bi waxee Ali bul yàggal ah xool bi bu fekkee xool boo tayul la bu ko yàggal beneen bi tamit al ula laka wa thani alayk xool bu njëkk bi yàlla du la ci bindal bàkkaar kooku sa cëru bët la mais ñaareelu kool ba nag boo delluwaatee nag boobaa bàkkaar da day tegu sa kaw ba tax boo boo gis moom aayul mais xool ba pare ye ye sax ca loolu moom dañ koy tere kon nit ki gisee nii dafa war a wàcc ay gëtëm automatiquement dafa war a wàcc gëtëm war a sëñ war a wàcc ay gëtëm mais nag bu continuer wala mu sëgg siggi xoolaat boobaa dafay am bàkkaar léegi nag moom bi mu gisee saxaaba bi dàq soxna si di ko xool yi <laughs> ah wàccewul ay gëddëm mu jaaxal ko mu ne ko yow ngay def lii te yow bokk sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko inni samitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man damaa dégg yonente bi alayhi salatu wasalaam muy wax naan mu doon wax naan ida alqa allahu azza wa jalla ida jamono joo xam ni alqa allahu yàlla sànni na azza wa jalla mooy yàlla def na azza wa jalla moom yàlla mi tedd te kawe def na fi qalbi mri'in ci xolu kenn ci yéen li limraatin bëgga labat benn soxna maanaam yàlla sànni sa xol labatu benn soxna maanaam bëgg ngaa labat benn soxna nee na fala basa aayul an yanzura nga xool soxna sa si mu ne loolu tax man si dafa am ci moom dama am ci moom bëgg-bëgg maanaam dafa bëgg labat soxna si yëgagul dara ah léegi nag mu romb mu koy xool xool boobu maye nañ ko ndax daf ko bëgg a jël soxna waaw waan jaabir jëlee nañ ci jaabir radiallahu anhu qaala nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nee na ida xataba jamono joo xamee ni labat na ahadukum kenn ci yéen almarata jigéen xataba fii du xutba de mooy labat kon ida xataba bu bu maanaam lu tax ñu tuddee xataba xutba parce que booy la ba soxna faa nga xutba xutba mooy faa nga def discours wax ak moom faa nga wax ak moom wala wax ak ay parents waaw faa wax bi am kon ida xataba wax bi faaw mu am mais nag ida xataba jamono joo xam ni labat na ahadukum kenn ci yéen almarata seen soxna fa in istataa ba ma bu manee an yanzura xool ila ma yad'uhu ci loo xam ni dana ko pousser ila nikaahiha ba ngir mu takk ko falyafal na ko def képp koo xam ne labat na ci yéen soxna mun a xool ci moom loo xam ne dana ko attiré ba mu mun a takk soxna soos na ko def xool boobu dagan na qaala Eh, jaabir radiallahu anhu nee na fa xatabtu jaariyatan ma labatoon nag benn soxna fa kuntu ma nekkoon ata xabba u lahaa di nëbatu di ko xool i ma dem ci ginnaaw garab yi làqatu ko xool wala nga yéeg ci benn garab ah di foofu ci jamono yooyu masalan di ko xool sàcc di ko xool maanaam mooy sàcc di ko xool rek waaw di ko xool ci moom soxna si yëgul nee na noonu laa def xatta raaytu ba ma dem ba gis min ci moom soxna si maa loo xam ni daan yi dëgg-dëgg poussé na ma xëcc na nikaayiha ci takk ko nee na fa tazawwajtuha ma daal di koy takk noonu laa def gisee lu ma la watee soxna gannaaw ko mooy làqatu di ko xool ci pet ba gis ni daal man li ma gis doy na ma daal koy takk hadis boobu wér na Abu Daawud Ahmad génn si Albani wéral na Al-Mughira jëlee na ci Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu nee na ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam dikk naa ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa dakartu lahu ma ni ko ma tuddal ko ni ma tuddal ko fa dakartu lahu ma tuddal ko man yonente bi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam imraatan seen soxna soo xam ni axtubuha imma axtubuha wala axtibuha ñaar yëpp wér na ci arab seen soxna soo xam ni dama koy labat ma ne ko ah man de yow ki yàlla yónni de soxna soo ñuy wax diw daal maanaam dama dama koy labat euh, ngir soxna ah yonente bi sallallahu ni ko idhab fanzur ilayha maanaam laaj ko ndax xool nga ko xam naa mu ni ko déedéet mu ni ko idhab fanzur ilayha dama nga xool ko demal nga dem ba jàkkaarloo moom ba noppi xool ko ah, ndax fa innahu ndax xool boobu de boo ko defee ajdaru moo lay gën a may gën leen a may yéen ñaar an yu dama ah, ñu saxal déggoo bay na comment seen diggante mooy gën a tax ak déggoo di sax seen diggante wala ak dëppoo di sax seen diggante maanaam xool googu nga koy xool moom it mu xool la ba ku nekk doyloo moromam loolu mooy tax ak déggoo gi gën a sax seen diggante kon takk loo xamul takk loo gisul wóorul jamono ji nag kon da gis ni jamono ji bokk nag suñ jamono beneen bi mooy abi hurayra radiallahu anhu nettali nee na qaala qultu inda nabi inda nabi sallallahu alayhi wa sallam toog naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ataahu rajul benn waaye ñëw ci moom ni ko fa axbarahu waa ji ni ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu tazawaja imraatan min al ansaar mu ñëw yëgal yonent bi ni ko dafa am benn soxna su mu takk ci waa al ansaar ko ñëw ci yonent bi ni ko ah man de am na benn soxna boo am te ni jël naa ko ci waa al ansaar muy waa Médine ah fa xañ na kooku ci muhaajiriin yi la bokk ci ñu jóge Màkka fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko a nadarta ilayha ndax xool nga ko yaakaar la ngoog moom xool ko waaw qaala la munu ko déedéet maanaam moom daal dañ ko wax ni soxna si baax na rek mu yable ñu takk sëy bi te xoola bu ko jàkkaarloog moom ndax ki ko wax doole na ko qaala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko fadhab demal ca moom wala seen kër fanzur ilayha nga xool ko jàkkaarloo moom ndax fa inna fi ayunil ansaar ndax ci bëtu waa lansaar yi jigéenu lansaar yi dafa am shay an lu ci nekk maanaam daa am sikki gu nekk ñii ñu ni seen bët yi dafa sew ñii ñu ni seen i bët yi dafa nàngam ala kulli li mën a am daal am na benn sikk bu nekk ci bëtu jigéenu lansaar yi xam na du jëf waaw léegi nag boo xool mun nga dem ba ñu jébbal la soxna si mu ñëw sëyi si mu réeku nga jàkkaarloo moom ni ah man de waxuñu woon lii waaw bu ko defee nag loolu pour éviter ko aussi loolu tax foo nga xool an Fatima jëlee ci Fatima wala an Sahla jëlee nañ Sahla ibn Saad mooy am na mraatan jaat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni benn soxna dafa ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ni ko muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah yow ki yàlla yónni jiitu li ahaba laka nafsi dama ñëw ngir jébbal la sama bopp loolu yàlla jagleel na ko yonente bi jigéen ñëw jébbal ko boppam mu jël ko sans takk jabaroo ko moom rek la ko yàlla euh, aw imraatan wahaban nafsaha li nabi in araada nabi ay yastankiha xaalisatan laka min duni muminin nee na fa nadara ilayha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy xool xool soxna si daal di koy fixé fa saada nadar xool ko ci kaw ba ci suuf ba ci suuf wala ci suuf ba ci kaw moom sallallahu alayhi wasallam waaw wa sawabahu daal di fixé soxna si xoolaat ko tamit fixé ko gannaaw ga taata raso mu daal di sëgg wàcce boppam bakka boppam moom sallallahu alayhi wasallam daal di sëgg wàcce loosu léegi nag soxna si bi mu gisee yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxul dara ba pare mu noppi bi mu no soxna si bi mu gisee loolu mu xam message bi daal di toog mu toogee ah fa qaama rajul benn waay jub min ashaabi yi ci sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ni ko ay rasulallah yow ki yàlla yónni in lam takun laka biha xaaja boo ci amul soxla de man am naa ci soxla fa zawit nii ha may ma xadis ba jeex xadis bi gudd la ala kulli shahid mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam xool na soxna si suuf ba ci kaw fixé ko gannaaw koy euh, wàcce boppam sallallahu alayhi wa sallam Fatima bint Qaysin nettali na te na moom ñëwoon na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ko inna muawiyata bna abi sufyan wa aba jahmin xatabaani mu ni ko mu muawiya di doomu abu sufyan di buur màgg boobu ñu xam ci lislaam ak abu jahm kenn la saxaaba yi dañu ma labat ñoom ñaar ñëpp comme soxna ci beneen riwaaya ñuy usaama ci la bokk mu wax ni ak usaama muy ñett ñu ko labal fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëw ci bi ba ko ko léegi sa xalaat laay déglu maanaam ci loolu wut kan la war a séy ci ñett ñii la ko labat labat muy Muawiya ak Abu Jahm ak Usaama yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko amma Abu Jahm Abu Jahm de moom fala yada asaahu an atiqihi ci ci ci mbaggam ci beneen riwaaya mu ni baraabun li nisaa dafay bari lu muy dóor jigéen ñi di leen maltraité kooku bul seen moom waaw ama Muawiya ama Muawiya nag moom fa suxluuk moom miskin la moom faqir la pauvre la laa maala lahu amul alal kooku mun laa yore at at attanu la ci wax gaay ni ñuy waxee <laughs> maanaam mun laa yore parce que amul dara parce que al baa baa bi yonente ne fa nistata minkum al baa képp ko attan charge kër amul attanul charge kër boobu Muawiya xoolal te boobu boobu Muawiya faqir la yonente bi ni mun laa yore te xoolal Muawiya moo mujj nekk euh, buur bi njëkk ci l'islam après Hasan ibnu Ali radiallahu anhu kon yonent xamul kumpa xamul lu ñëw sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla xamal inkixi usaama ibn zeyd nee na ko daal booy sëy na nga sëy ak usaama ibn zeyd nee na fa këri bu maraari euh, maraari daal bañ loolu maanaam ndax usaama sama xol àndu ci daal ndax comme usaama dafa ñuuloon te doomu zeydu la te cosaan bi zeydu jaam la woon gis nañ daal ci wàllu yax bu rëy ñii ñoo ko gën a rëy yax waaw ah. mais bi mu nee na gannaaw ko yonent bi insisté waat ne ko sëyal la Usaama nee na daal ma sëy moom wante yàlla daal ciy def yiw wa jaala allahu fi xayran yàlla def yiw ci sëy boobu ak bar ak barke yàlla def ci barke waxtu bi tuub ñu daal di ba cay ñee kon lii bokk na ci euh, xadiis yi nga xam ni moom la ñuy jël jiital ko ci wàllu euh, wàllu xitba léegi nag li des mooy teggin yi nga xam ni moo aju ci xet ba teggin yi aju ci finance yu fiançaay euh, moom moo des gannaaw bu ñu jiitalee xadis yooyu wante mbokk mi wax na ma waxtu wi jot na kon ñu yemani foofu hada wa sallallahu wa sallam ala rasulillah waaw bu amee question incha allahu ñu laajte ni fekkee ni benn waaye la ni gis na soxna si nga xamante ne dafa am diine am na ndax mu am taar wala mu am xaalis mu gis benn faaw beneen ndaw si nga am si wet bi moom diine rek la am li mu ne benn si ñoom ñaar kan la ci kan la ci fay alhamdulilah salaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi atbaai euh, la shakka Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax ni jëlal borom diine tekkiwul ni bu ci boole yeneen yi bu ci boole borom taar bu ci boole borom askan bu ci boole borom alal déedéet mais dafa wax ni bu fekkee contradiction am na so maanaam benn nga mën a choisir ci yi mooy ku am imma ku am diine wala ku am xaalis rek wala ku am taar ak ku am diine rek wala ku am askan bu baax askan yàq bu rëy comme ni ñu koy waxee ak ku am diine rek booy nga xam ni benn ci ñaar ñi nga mën a tànn boobaa na nga tànn borom diine wante euh, bul tànn ki nga xam ni borom alal la rek te amul diine bul nga xam ni borom askan la rek te amul diine bul tànn koo xam ni borom taar la rek wala borom alal la rek te amul diine loolu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg a wax foofee loolu tax bu amee soxna soo xam ni kay dafa dajale ñeenti yii kooku moo gën keneen ku dul ku dul moom ki dajale ki dajale alal dajale diine dajale taar dajale askan bu rëy kooku moo gën a mot parce que taar bi dana tax ba yow beneen jigéen dootul fees sa bët beneen jigéen dootul fees sa bët loo tax taar bi aussi euh, na doon taar boo xam ni maanaam loolu tax euh, yenn borom xam-xam yi euh, nit ñi dañu wute foofu parce nit ñi am na dañoo am seen degré iman yegg na ci ñoom jigéen diine bi rek lañu xool ak jikko ji leneen intéressé wu leen lu dul loole mais am na ci ñoo xam ni rawatina jeunes yu bari léegi ñoom soxna ne rafet daal ak ñu am diine diine rafet daal dana ci nekk ci bokk taar na ci bokk. loo tax yenn borom xam ne dañuy wax ni booy tànn sax soxna. booy njëkk laaj bul laaj diine ci mais njëkk la laaj taar bi bu fekkee yow yàlla dana nattoo mbiru taar parce que am na ñoo xam ne bu xees bi rek am na ñoo xam ne bu <laughs> nangam bi rek ah, nga xam ne ku nekk am nga say kii yu mel noonu physique bi daal waaw léegi booy njëkk a tànn booy njëkk a laajte wala dajale say information njëkk la xool foofu taar beeg yooyu bu fekkee taar bi yéemu la doyu la nga bàyyi bu fekkee yow jaral la ko léegi boo bàyyee dañ koo bàyyi ngir ñàkk taaram mais bàyyi woo ko ngir ñàkk diine ngir am diine mais da fekkee nag da njëkk a laajte ba ñu ne diine am diine la ku am jikko ji rafet la macha allah nga laajte taaram wala nga dem kool gis ni taar bi daal yéemu la nga bàyyi ko loolu dafay doy waar parce que boobaa yow taar taar bi nga taaral ci kaw diine taar bi nga jiital ci kaw diine tax da taar day mottali rek mais baas bi mooy diine waaw alal jeeg ak euh, yàq bu rëy beeg ak euh, yeneen yi yooyu day mottali parce que yooyu li muy mottali mooy bu xasee am diine euh, léeg-léeg li muy mottali taar bi dana la tax yow xaj na doo xoolati beneen jigéen parce que taaram dana fees sa bët ba dootoo xoolati beneen jigéen ngir ànd ak moom ci lu xaraam wala ngir xool sax kon noonu rek xool bu xaraam loolu dana la fekk fegal euh, beneen bi aussi ni dana gën a yokk euh, sa mbo bëggeel ak sa cofeel ci moom sa bànneexu ci moom tamit day gën a mot loolu njariñ la ci yow euh, beneen bi aussi mooy ci wàllu askan bu rëy bokkee ci yenn askan yi am na mbir yu xeebu yoo xam ni du ci du ko da koy jombale boppam am na jikko yu sew yoo xam ni da koy jombale boppam parce que yenn famille yi nga xam ne dañuy wax ni ay famille yu yu mag lañu am na ñuy rey yaree doom yariñ yoo xam ni day jombale boppam mbir yu suufe yi ay baseet yoo xam ni du ci jag ko defee loolu euh, benn njëriñ la ci njariñ yi beneen bi mooy bu fekkee euh, alal ji aussi loolu imma mu dimbale ci boppam wala mu dimbale la ci wala dimbale sa njaboot ak moom ci alal jooja bu ko defee loolu lenn la ci jariñ yi alaakulli bu dajalee daal euh, diine ak yeneen yi ki la gën a dajale diine ak yeneen yi boobu moo gën a mot ci jigéen ñi allahu alam ñaareelu question bi mooy ci la nga leeral ko ci xadis Sahl ibnu Abi Salma ci terme bi ñoom saa ko utilisé an yanzura ilayha ndax an yanzura fii partie yëpp ngay xool jigéen wala xam partie nga xam ne moom tàngaay. aada bi mi ngi loo tax man dama jàpp ne deux heures de temps mooy exposé bi wala une heure après alaa Euh, am nañu fi dix adab def naa ba douze euh, hmm? douze ans am nañu fi douze adab yoo xam ni ci aadaab yi yoo xam ni mu ngi aju ci wàllu fiancé boo xoolee troisième bi am na fa tamit dix points yoo xam ne mu ngi ci aju kon daanaka li ñu war a jël yëpp ci détail xadis yee introduction la détail bi dëgg-dëgg mu ngi ci point yi ñu war a jël ba tax masala bi ngay wax nii mi ngi foofu lan la ñu war a xool ci soxna si ndax xar kanamam rek ak euh, loxoom rek moom lañu ñu war a xool ci soxna si mais boo xoolee xadis yi li li wér li ñuy xool ci li muy li muy li li mooy xar kanam bi ak loxo yi tenk yi quoi loolu mooy li gën a wér ci li ñu muri parce que boo xoolee xadis bëre bi yonente bi sallallahu alayhi wax ni fa inna fi ayunil ansaari shay'an foofu la boroom xam-xam yi tegtaloo ni kon li mu ko wax na ko xool mooy xar kanam bi mooy kanam bi parce que loolu tax mu ni ko ndax bët seen bët yi dafa am lu ci nekk kon na nga xool kanam bi te boo xool lan moo tax ngay xool ku soxna si xool bi pour lan la pour xam taar taar bi taaru jigéen ci kanamam la nekk li ci ëpp maanaam pour xam taar bi ci kanamam beneen bi mooy euh, loxo yi lu tax ñu wax nañu xool loxo yi pour xool euh, ndax suur na ndax tees na maanaam ci waxin ñoom am na ñoo xam ni ñoom loolu lañu bëgg jigéen jigéen boo xam ne dafay fees kii fees na loolu tamit bu xoolee loxo yi ak dëggu yi ñu ngi xam ni kii maanaam am na yax am na yax am na euh, loolu loolu am na ñoo xam ne dañ koy taamu ci soxna dañ koy taamu soxna loolu tax xool bi am solo xool bi tamit du ku góor ki rek mooy xool mel ni ku jigéen ki objet la bu amul su moom tamit non non ku jigéen ki tamit dafay xool ku góor ki xool ko xool boo xam ni ndax physique am doy na ko diine moom beneen mbir la mais léegi physique lañuy la ñu xool aussi yeneen yi nga xam ni soxla nga ko yow ci sa soxna yu mu satisfaire la ci wàllu physiquement loolu jarul muy muuree ko jarul muy muuree ko nga xam ko jarul muy tax euh, yeneen borom xam-xam yi am na ñoo xam dañoo xaabaabal lii lépp ngay xool comme daawuda zahir yi lépp mun nga ko xool loolu xam nga diine ak xel du ko mu loolu mënul nekk am na ci mazhab imam ahmad ñoom danañ may nga xool ci xool tànk yi dëgg tànk yi quoi dëgg yi yi da nga mën a xool aussi loxo yi ba ci zira bi da ci xasab bi nga mën a xool euh, bopp bi mën naa mën na muri boppam nii nga xool bopp bi xool ba ci doq bi ak loos beek ak yooyu mën nga koo xool loolu ñoom may nañ ko ci yenn riwaay bu ko nit soxlaa bu ko nit soxlaa mais nag cosaan bi moom boo xoolee kanam gi rek xool loxo yi euh, daanaka euh, li nga soxla da ko mën a am bu fekkee mënoo ko wala may ñu la ko

Untuk yang tidak Tamam. Geçen millet imam usulü yemek. طيب ماشي بلا تمام المهم يكون ماشي طيب waaw waaw ci kii waaw incha allah ñu kon ne tayib kon ñu kon ne waxtu des na mu ne fa min aadaabi al xutbati bokk na ci teggini xutba ah tayib macha allah seen question yi damay bañ question yi ñu jiital ko ci li ñu war a jël maanaam lu bari ci question yi mi euh, ngi ci biir aada bi dana ci ñëw quoi bon waaw ah, ah. waaw waaw ah? léegi ah? waaw boobu yeneen bi day wax ni ku am dara ci yéen na takk bu amul dara na takk ko koor te wuti ba korom muy am bu amee takk am bi mooy lu mu war a wutee lu mu mën a yore soxna rek minimum bi nga xam ni yow mën nga cee yore soxna kër kay du charte mooy boo amee foo foo foo luyee mooy nga amoo kër kër sa kër famille wala sa kër boo moomal sa bopp wala boo lu mën a luyee wala ça dépend am tamit loo xam ni moom nga ko mën a dundale amee doom euh, noonu surtout moom loo ko mën a dundale yore yenn charge yi nga xam ne mënut a ñàkk loolu mënut a ñàkk mais am am bi moom ak man ko loolu dafa am solo loolu tax Muawiya bi ko soxna si laajee yonent bi salaa bi ko soxna si laajee yonent bi salaa sallam dañu amma Muawiya wa amma Muawiya fa soxlu laa maala lahu Muawiya soxlu la soxlu miskin la amul alal bu seeg moom parce que mun laa yor booba dafay lor ku jigéen bi ak yi mu ko war a yi mu ko amee du ko ko mën a jox bu koy lor mën na ci juddoo lor mun na ci juddoo waa loo tax mun na cee loru moom tamit diine mun na cee loru diine ndaw sa mun na cee loru ndax ñaare euh, sëy yu bari yi nga xam ne dañuy gëmm rek sëy base yi duñ ko jéem a réunir luy mujj mooy dañ ci dugg ba noppi problème yi ñëw nga defee nag problème yooyu jur yeneen problème problème finance mooy am jur yeneen problème xam ni daanaka ba moytul dañu mujj di divorcé tax euh, faaw nga attak tey kii euh, day laajte ni ndax euh, ndaw si ndax mun nga daawa nga daawa ko mu dugg si islam ba pare mun a ndax mun nga daawa soxna si ba pare dugg ci lislaam nga tag ko ah kay koo kay alhamdulilah kooku boo defee xëy fekk du woon julli nga daawa ko fexe ko ba mu dugg ci lislaam eh, fekkee bëgg na la aussi yow tamit eh, mën nga charte yi dajale nga tag ko loolu baax la loolu xayru ala xayr loolu ba moytul nit ki dana ci amaale yoonu ki nga xam ni yar na eh, jigéen yoo xam ne masalan jaamam la masalan wala jéebét ci cosaan mu ñëwee ci xadis bi gannaaw ga mu yar ko jàngal ko daal di koy e, goreer gannaaw ga takk ko kooku e, ñaari yoon ñu koy yàlla subhanahu wa taala di may loolu nag lu lu baax la e, dara nekk ci allah waaw ah, loo tax man leen question yi bëri dana répété wu loolu tax man li préféré sax mooy cours bi ñu def ko ba noppi nag question yi doo ko ñëw après ci cours bi parce que mais mën nga wax ak moom ci téléphone naam eh, yenn borom xam dañuy wax ni booy wax moom téléphone ñenn ñi dañuy wax ni il faut mahram am parce que téléphone rek xalwa da ci am am ñu ni déedéet xalwa da am ci téléphone ala kulli mais mën nga wax moom ci téléphone si loo xam ni aajo la benn aajo la mooy loo xam ni soxla ngeen ko aajo bi mooy loo xam ni moo aju ci euh, seen cérémonie mariage bi mu war a demee ak euh, organisation bi ak noo leen di planifier après mariage bi ak yu noonu aussi mu sori lu aju ci wàllu santiment waaw baat yi aju ci wàllu sentiment ak ñi nga xam jëkkër ak jabar ñoo koy waxante baat yooyu aussi bañ a am seen diggante pare mu ne bañ a nekk loo xam ne lu yàgg lay doon xam ni dangay ngay dem bay bànneexu ci ay waxam di wéttali ko di ko wéttali ko mais ni mu ngi sa wet guddi bu jotee rek nga def see limix nga xam ni da ngay da ngay tëdd di wax wax wax wax ba une matin wala deux heures du matin loolu moom waxuñu maanaam ci ni mu war a doxee waaw noonu la war a doxee noonu la war a doxee maanaam loo xam ni rek aajo la rek pour parce que nekkagul soxna ba léegi ajnabiya la ba léegi jaambur na ci yaw keneen nag ak yow yéen ci am ci wàllu sharia ci ni mu nekkee jaambur kon waroo am ak moom di wax ak moom yenn yi nga xam ne dafa aju ci biir néegu sëy ci relation bi war a am diggante jëkkër ak jabar am maanaam yu aju ci organisation bi loolu mën ngeen ci waxtaan mën ngeen ci waxtaan par ay message mën ngeen ci waxtaan par ay email yëpp mën ngeen ci mën ngeen ci waxtaan échange ante voilà benn question léegi loolu yëpp ñu ngi woon ci labat bi naka la war a doxee xam nga ñun fii li ñu miin mooy da ngay gis soxna mu yéem la wala nga gis ku góor mu yéem la nga dem ci moom directement wax ak moom ngeen d'accord nekkal ko ci nekkal ko ci nekkal ko ci ba keroog seen mbir di pare nga doog a dem ci waajuram yi wala moom mu dem ci waajuram yi wax lañ ko mais procédure yi ñu war a demee ba yow boo gisee soxna mu yéem la nga bugg ko comme soxna fekk yow sart yi daje na ci ba noppi ah, nga dem ci waajuram yi wax ak ñoom xam ni waroo waroo jaar ci suuf mujjee ci kaw yow ci kaw nga war a jaar doo ko jaar ci suuf noonu la war a demee maanaam nga dem ci parents yi wax ak ñoom man de seen soxna seen doom danga ko gis ma wax moom sax parce que boobu day lay wóolu boobu day confiance day am yaa ngi kii bokk la xale tey ah bu defee rek nga jaar ci parents yi waxtaan ak ñoom ba pare ñu leen nag mu bëggoon mbiru soxna moo taxoon ma ñëw euh, seen doom si nag jot ñoo waxtaan euh, mais daal dama ko bëgg gëm soxna loolu demande nga demande nga léegi première partie la baxe boobu léegi nag ñoom li ñuy def mooy waaw baax na immaa ñu woo ko pour mu gis ndax xam nga kii mu leen mu ne ko waaw xam naa ko parce que bokk classe wala ñoo bokk école wala ñoo bokk gen benn euh, association wala ñoo bokk koñ walla ndàngam bu nga defee nag Euh, gannaaw ga mu ne baax na dinaa waxtaan ak sama doom après gannaaw ga waxtaan ak moom ndax bëgg nga ko deneen dafa ñëw ngir soxna moo ko tax a jug ndax bëgg nga ko soxna si imma wala mu ak yaayam waa waa jooju waxtaan ak yaay soxna si soxna si mun a wax moom bu jigéen ak jigéen nga defee soxna si bu joxee accord am gannaaw ga parents yi ñoom tamit joxe nañ seen accord booba yow ci nga war a ñëw démarche xool bi nag foofu fekk yow accepté nañ la comme comme comme comme labat euh, bu ko defee nag yow ci nga ñëw ngir xool soxna si ndax léegi doy na la waaw boo defee démarche bi noonu la waroon a demee maanaam tàmbale ci parents yi bu mujjee ci soxna si tàmbale ci parents yi mujjee ci soxna si mais am na ñoo xam ni dañuy tàmbali soxna si te loolu mooy li ëpp mujjee ci parents yi bu ñu demee parents yi fekk ñoom dund nañ li yàgg seen bëggeel boobu dund nañ ko li yàgg ba mu racine wu racine ba am racine ci seen biir xol yi sax garab bu nekk garab bu kii maanaam dem nañ ba sori ci bëggeel seen diggante dem parents yi parents yi bañ léegi nag jéem a jaar ay bunt ba yeneen xew ci ba kenn ngay di kenn ko man mënatumaa muñ soxna si parce que fi ngeen toll la yoo tax boo jaaroon ci parents yi foofu du am blocage ñaari soxna si moom dalay teel a imma ak mu accepté wa imma bañ a accepté foofu munoo insister bu ko defee nga teel a mu teel a libéré jàmm am loolu moo doon procédure bu normal ba ñu waroon a dox ci wàllu wàllu labat léeg-léeg sax gis koo xam ni alaaka li bu ñëwee ci procédure dañu gën a détaillé foofu incha allah.